asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mardi 24 décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey fi ñu koy xëy doore mooy yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu làmb yëglekaay bi nag dafa ñëwati tey ci écurie Fass ak coow la nga xam ne nii juddu na fa muy dàqu ka nga xam ne moo di Papa Sow mu mel ni ki nag coow loolu fi mu nekk nii nag ka nga xam ne kilifa la ci Papa Sow waaye tamit nekk enjeu am ñu koy wax. père ba père ba moom xëy na di wax ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di sunu làmb la mu xam ne daal nee na leen daal li leer ba leer mbirum Papa Sow ak écurie moom nekkul événement boo xam ne dañ cee war a nekk daal di ci wax guddi ak bëccëg père ba moom loolu la gis ginnaaw tukki boo xam ne demoon na ca ba ñëw daal xam le ne ne daal lii moom du événement waaye ba tey mu mel ni wax jooja mu ngay continuer ndax nag ña nga xam ne nag ñoom la yëglikaay bi jàpp ne day ñu nekkoon ak Papa Sow lañu di ay mbër ci yaa nga xëy ñu laaj la ngay wax bu dee ka nga xam ne nag moo di Gris doo la moom di tête de file ba daal moom bañ ko ci laajee daal li mu xam ne la mu jàpp mooy lépp daal nañu fexe mu rafet Gris moom loola mooy ay waxam Forza itam di mbër na ca écrit ba moom la mu xam le nee na daal wax jooju moom li am solo ba am solo mooy nañu dem président ba daal di Abbas Ndoy ñu laaj ko ndax moom itam daal mënu caa sori ak ay wax boogaay itam di mbër nekk ci gri ba la mu xam ne daal moom ne ne day bëgg na daal di gis ki nga xam ne moo di magam Papa Sow ci seen côté ndax itam ne na loolu daal lu leen di neex la ñoom ba tey ñoo wax loolu waaye ba tey du ñu génn écurie Fass dañ fay des ak ka nga xam ne mooy Serigne Ndiaye numéro 2 ma jóge ci ndam bërki déem mu mel ni ki nag yëglikaay bi di sunu làmb ne bii mooy juróom benn leen ndamam yoo xam ne mu nga koy am ci làmb ji moo tax nag yëglikaay bu jàpp ne day fi mu nekk nii daal mu nga aw ca yoonu nekk quatrième tigre de Fass sunu làmb moo xëy wax ko waaye am na boroomi xam-xam yu nekk ci làmb ji di ay kilifa bañ leen ca laajee loola lañ ca xamle ka nga xam ne nag moom moo di njuga ja la mu ne daal nee na loolu war na mën a nekk waaye nag day fekk daal mu déggal ña nga xam ne nii ñoo ko yor muy waa écurie Fass te nangu itam nag di entraîner nee na loolu moom su ko defee lu nekk mën na koo nekk tey ci làmb ëllëg booy kayre itam di bëre bëre ba bàyyi bëre moom it la mu xam ne daal nee na bu fekkente ne daal moom teg na mbiram ci aw yoon maanaam wàcc boppam te déglu nangoo daal woyof ni mbaxana ngir mën a bopp mën koo yenu ne na su keroogee moom mën naa dem fu soree sori ci làmb ji Thierno Ndiaye wala boog papa Thierno Ndiaye bu TFM moom la mu xamle moom itam daal jàpp na ne day bu tegee mbiram ci yoon daal fii ba benn wala boog ñeent ba jàpp juróomet moom mën naa xëccoo ji roi des arènes wala sax mu doon ko moom Serigne Ndiaye numéro de mu mel ni ki daal tey moom itam xëyes na ci moom waaye moom Serigne Ndiaye numéro 2 itam xëy na fa nga xam ne mooy ci Leewtoo TV di fa wax la mu xam ne nag daal ginnaaw ndam la mu am ba mu ca jógee ñëw entraînement nuyu si waa écrit ba daal moom daal ne na fi mu nekk nii li ko soxal mooy nekk ci li mu war a nekk ci kaw ay kilifaam di liggéey liggéeyam waaye daal jàpp na ne moom mbirum Tigre Fass ak yooyu xëccoowu ko parce que nag daa jàpp ne loolu moom biir écrit la yem Sénégal mu ngi ci ginnaaw ay magam ñoom Girek ñoom Forzac ñoom Lagros ñamel ni ki noonu nekk ci seen ginnaaw di liggéey waaye moom daal la ne xelam xëy na ëllëg mooy mu nekk sax roi des arènes mu mel ni ki Serigne Ndiaye foofa tamit xëy na di fa wax waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay continuer wala ñu dem ca muy ci kaay bi ñëw na ci muy mbirum ka nga xam ne nii moo di lig Nicolas Cerno Ka moom mu nga xëy di ca wax waa ci wilum loo xam ne daal buñ ko condamné nekk buñ moom moo di ca làmb ja yëglikaay bi tamit ñëw na ci waaye leneen loo xam ne dan cay dem ci yëglikaay bi nga xam ne nii day moo di sunu làmb muy sunu làmb door ba moo mel ne ki nag ka nga xam ne nii daal moo di Malick Niang moom wane na fa boppam ci wàllum fecc bu baax a baax yëglikaay bi ñëwaat na ci loolu waaye beneen xale boo xam ne nii daal moo ka nga xam ne nii moom moo di xoyantaan ca Gàmbi ñoo bokkub écrit daal moom na li muy reefe itam géntam daal moom l'enfant noir nee li ci nekk mooy mu nekk roi des fa nga xam ne mooy ca réewum Gambia la tribune moom dafa ñëw ci wax joo xam ne Modou Lo waxoon na ko ca Leewtoo TV maanaam ci digganteem ak Jules Baldé xam ne daal nekkul ku muy déglu wala ku muy bàyyi xel ay waxam amulu ko njariñ yëglikaay bi di la tribune ca xëy ñëwaat tey indilaat ko Modou daal de xam ne daal pour Jules Baldé moom nee na ay mbiram moom fële la ko teg parce que du ko déglu intéressé wu ko amul wax joo xam ne da koy wax ju ko amal njariñ parce que Modou daa jàpp ne wax joo xam ne moom du am njariñ dina déglu ko yàq say nopp la mu mel ne kii daal kon foofa itam ab yëngu-yëngu mu nga fay am wala mu ngay bax beneen xale boo xam ne moom ci làmb ji la ne ñu koy wax Gris Junior nekk école de lycée Cheikh Mbaba moom la mu xëy di xam ne daal nee na Moussa Dioum bàyyi ma njoon moom bokk na ci làmb joo xam ne nii marqué na ko trop trop trop trop loolu mooy wax ka nga xam ne nii moom moo di Gris Junior waaye li leer ba leer daal soo bëggee dégg dëgg daal tey la 24 décembre kon yaakaar naa ni suba yi doon vingt cinq di doon bisu Noël ci atum deux mille dix neuf kon bokk suñu mbokk chrétiens yi ñu ngi leen di wax joyeux Noël Noëlub jàmm ñaan yi yal na ko yàlla nangu képp kuy chrétien rek ñu ngi lay nuyu di la ziar rawatina seen kilifa monseigneur Benjamin Ndiaye di ñaanal waa jàngu bi yëpp yal na jàmm yàgg ci àddina bi waaye yal na ci Sénégal di ëppale saa su ne ndax nag ñu bokkub teen ñooy laxasoo ay goj te réew mi benn bopp la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 mais di ko wax képp ku nga xam ne yaa ngi ñuy suivre rawatina nag suñu mbokk chrétiens yi di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci ñoom di leen wax ne que fête bi yàlla nañu ko yàgg a comme li ñuy wax rek Sénégal moom chrétiens yi ak jullit yi benn lañ ci deret ji benn lañ ci maanaam si lépp ñooy partagé lépp parce que Korité bu jotee ñu ak ñoom ñoo koy bokk Tabaski noonu màggal yi gàmmo yi ñoom tamit bu seen Noël bi dikkee noonu lay demee nga lax yéeg yépp xam nga kon daal di nuyu di leen ñaanal jàmm rawatina nag am nañ ci ku nekk fii ci kër gi Cédric Mële chrétien la ñu ko ci nuyu di nuyu tamit koo xam ne ci fans club Babacar la bokk di chrétien ñu koy wax Cédric Marcelin Ndour ak David Lewis ñooñu tamit maa ngi leen ci nuyu bu baax a baax ak Agnès doomu Mayendep moom tamit suñu soppe la di nuyu képp koo xam ne daal chrétien la man mi di wax ak yow sax am naa ay mbokk yoo xam ne ay chrétien lañu waaw ñu sant joom ni man sama doom ba samay doom baay lañu maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ci feet bi daal loolu am na solo Babacar na ñëw nag ak waa sunu laam waa sunu laam moom li ngi ba tey si actualité bi mooy mbirum dàq Papa Sow foofu si écurie Fass tey nag na nga xëy journal bi dafa xëy jox kàddu ñi nga xam ne ñoom nooy coéquipier ma moo xam ne noo bokk ñoom écurie ki su mel ni comme Gris Bordeaux moom daal lu ma gis mooy nen daal na lépp rafet ki nga xam ne mooy Forza nee na daal nañu waxanteeg war nañu waxanteeg ki nga xam ne mooy président muy Abass Nooy boogaa moom nee na Papa rek moom dong moom kese te si su demee daal mën na am amaana mu topp ko si ay si si wetam. ah boogaa mu ne su Papa Sow demee mu topp ko ah ñun daal li ñu xam mooy la ma waxoon démb laay waxaat tey rek mbir mi daal ak lu mën a xew mooy rafetal gi daal moom moo moo ëpp solo lépp yaa ngi dégg rafetal bi nag mooy lu yàgg olof ne na dëgg la comme dañu yàgg ànd Papa Sow di doomu Faas bokk si écurie bi ndam lu ne mu jox ko écurie bi yaa ngi dégg tey ñoom écrit bi ñu dem di dem di dem ba benn moment kilifa yi jàpp ne écrit bi ni muy doxee anarchie la tegootut ci aw yoon ñu xëy toog waxtaan pour war ko teg ci aw yoon indi ay sart déggoo ci teg ko ci aw yoon a ah, yaakaar naa ne nañu jéem a waxtaan pour que sart yooyu bu ñu xamee ne mooy njëriñal écrit bi wala ñu jàpp ne mooy njëriñ li ñu jéem caa tegu pour que écrit bi mën a avancer parce que loolu tamit defe naa moo war a am fu mu mënta doon li ci des nag mooy dàq bi ak bañ a dàq loolu comme li may wax rek nañu jéem a waxtaan rafetal seen diggante parce que loolu moo ci nekk parce que Papa li ko dese ci làmb bareetul yaa ngi dégg te Gris Fass Papa Sow bu bëree ba bàyyi bëree wala Gris bu bëree ba bàyyi bëri terewul Gris Fass di exister di continuer di nekk Gris kon defe naa ne la nga xam ne nag mooy ne seen diggante ci rafetal ak la ñu mës a ci ay baax-baax nañ ko di teg rek yaa ngi dégg gën a waxtaan yaakaar naa suñu waxtaanee daal leneen ca côté Papa di ñagas ak leneen ci côté biir Gris bi di ñagas ñu jéem koo dindi sànni ko ku nekk di respecté nga xam ne nii mooy loola su ko defee ñu mën a avancer parce que garabu réeroo moom nee nañ sémmiñal waxtaan a koy daaneel Babacar ki nga xam ne mooy per Ba ñu gën ko xam si euh, pare wu Papa Sow moom daal journal bi tam jox na ko kàddu moom li mu jàppee affaire bi daal c'est un non événement. waaw per ba moom nee na du événement lu tax ñu war cee nekk di ci coow waaw xëy na moom gis-gis boobu lay amee parce que kilifa la ci Papa Sow mais kilifa la tamit ci parcelle ba mu dëkk waaye tamit écurie yaakaar na ne jox nañ ko fa cër yaa ngi dégg kon yaakaar naa ne moom itam jaay jàpp ne kon mbir mi jërul coow. waaw parce que am na yoo xam ne su amee pour man kilifa noonu lay war a mën a taxawee maanaam du jar coow xëy na parce que li tax mooy dama yaakaar ne la muy ci jublu mooy nañu waxtaan maanaam ko maanaam bokk lu mu ci mën a doon rek ñoom ñi ko seet ñu seere ko ba nga xam ne du jar coow mais nag li tax mu am wax mooy que ni Papa Sow dafa nekkul n'importe quelle personne ci làmba écurie tamit nekkul n'importe quelle écurie ci làmba kon defe naa ku toll ni Papa bu ñu xëyee tey ñu ne dàq na ko fi dàq nañ ko fa ndax ñàkk déggoo ah père ba faw wax man cee toog moom du mën a ñàkk waaw Euh, Babacar journal bi aussi nga xamal leen kii di mun a dafa def benn posé benn question ne ginnaaw moom amee six victoires d'affilée Serigne Ndiaye est-ce nekk tamit nekku si tànk nekk quatrième tigre de Fass waaw loolu de ab laaj la bu journal bi suñu làmb xëy samp ah waaw parce que tamit mbër moom li ngay rêvé wala wala ku mën a doon métier ba nga nekk nga dem ba nekk ci au sommet xëy na moom tey loolu ñu ngi koy wax waaye moom ci ay waxam moom dafa jàpp ne sax moom loolu moom tuuti na ci bëtam parce que li mu jàpp mooy Tigre de Fass waa Fass la concerné ñoom ñi nekk ci écurie Fass ak supporter waaye dafa jàpp ne li nga xam ne moo concerné sénégalais yépp ne na moom loolu moo ko intéressé muy nekk buuru làmb roi des arènes ne loolu moo ne ci xelam mais nag comme li ñuy wax rek làmb ji moom mu ngi noonu écurie baa ngi noonu moom mu ngi noonu na ñu bàyyi yónni yàgg ba xam suñ jegee nag suñu laa may dem fi nga xam ne mooy Leewtoo TV Leewtoo TV démb demoon na seeti ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye ginnaaw na moom bu rëy ba mu am si kaw Libidor dimanche bi ñu génn si stade Iba Mar Diop moom na dénk na ay kàddu yu rafet euh, ginnaaw euh, bu mu euh, rafetloo aussi jàppale bi ko waa écurie jàpp jàppale si combat bi waxtaan waxtaan bu yaada ak Babacar. waaw démb la woon ñu fekk ko entraînement mu parce que tamit loolu am na solo bëre am ndam bët set dem sa écurie. yëngali sa yaram entraîné xëy na doo sa entraînement yu metti mais nag nga demaat ànd ak loolu defe naa ne tamit lu jara wax la te lu am solo la mu nekk xale boo xam ne dim waxtaan na ñoo moom bay wax mais booy waxtaan ak moom di nga xam ne xale la boo xam ne itam euh, am na kilifa par rapport ak ni muy waxee ak ni nga koy fekkee ay nitam yaa ngi dégg loolu itam dañ ko soxla ci xale muy mbër boo xam ne itam vraiment daal ah loolu moom lu ñu gis la si moom que ni su sàmmee boppam déggal ñi mu war a déggal carrière am mën na sori waaye nag xam nga Sénégal fii li metti mooy Babacar day commencé di wax si micro bi rek ñu ne ko yaa aay yaa nangam mu aj mbagg dootul xàmme janj joor yaa ngi dégg te yooyu boo ci boo ci dee dugg nag mën na la kale nit ki lépp looy def ja dàqal ne jàppal am na ku la ko dàq yaa ngi dégg parce que li tax mooy euh, am na ñoo xam ne dañoo feeñul waaye bu ñu feeñ nga xam ne am ñu la dàq fuuf li ngay def kon moom li koy wax mooy am na lu ko ay nit wax ci journal bi ay ñoom Boy Kay rek ñoom Ndiouga Diak ñoom Papa Chernou Ndiaye ak ñooñu maanaam nag. comme nu ko tubaab bi waxee na jéem a waaw wàcce boppam daal. redescendre sur terre. boobu na ko def Serigne Ndiaye maanaam xam ne xale la déglu ndigal di ko jëfe te bàyyi ay tere ndax Cheikh Ibra Fall noonu na loolu mooy tax a mucc waaw jëfe ndigal parce que ndigal moom Cheikh Ibra ñuy ñaan yàlla taaf ñu si barkeem te yof ay leeram dégg naa doon na ne ndigal caabi la su ëppee du ubbi boo ko yootaanee yàq kanaar ba kon lañ la digal da nga koy def te yem ca kep soo bëggee jariñu Babacar nag suñu jógee si Leewtoo TV nañu dem si Leewtoo point net foofu nag ñuy xamal ni euh, Adrien Senghor euh, suba am na mise u 500000 bu ñu fa tekk suñu jógee nag si lutte simple bi nañuy dem si lutte avec frappe bi fee si stade Iba Mar am na combat diggante Ousmane Ngom 2 ak ki nga xam ne mooy ab Ablaye jóg waaw loolu kon suba si Noël bi loolu la gars yi indiwaat mu mel ni kon daal 25 décembre tàmmoon nañ ci nag di gis ay grand ay événement yu mag a mag a mag mais loolu boo xoolee xaw na raar léegi waaw loolu nag ah vraiment xam naa amateur yi na mat nañ ko tamit lamb dina am suba ñii amateuru frappe bi am nañ lamb Iba Mar Diop Ousmane Ngom euh, ki nga xam ne nii Ousmane Ngom numéro 2 ak bu Yoff ah ak tamit Adrien Senghor 500000 mu mel ni ki kon suba itam amateur yi am nañ fu ñu bu ñu feetoo ba ba ba kii ngoon gi ku ci nekk mu neex rek doxantul Iba Mar wala ñuy doxantu Adrien waaw. Babacar nag si kàddu yoon leen di tàggoo leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mais soo nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astan ne déjà vraiment chéri Khadija Diallo depuis Italie ki nga xam ne mooy Mbaye Seye depuis euh, France naan ko nekkal euh, si jàmm di ki nga xam ne mooy Abdou Gueye depuis euh, États-Unis Baye Fallou Diamaguène Papa Sita di ki nga xam ne mooy Asek chéri Khoudia Seck depuis Italie aussi maa ngi ko jox wàccuwaayam di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya Fallou ak ki nga xam ne mooy ba Moussa naan leen joyeux Noël di nuyu ki nga xam ne aussi mooy Aïcha Faye madame Niang yaayu paate waaw yaayu paate ay sa ngi yu nuyu di nuyu borom këram Mohamed ah mais di nuyu tamit ki nga xam ne nii mooy yaayam di sama yaay mère Sougou maa yu koy nuyu bu baax a baax ndax kër gisante nañu te vraiment wane na ne moom borom njaboot la kon yaay booy maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal jàmm di la wax ne daal ni nga soppe Babacar nu ko raw la Babacar soppe yaay sama yaay mais di sama goro di nuyu sa doom caat fay di nuyu famille bi yëpp mais di nuyu ñëpp ñi nga xam ne tamit ñu ngi suivre Leewtoo TV à travers le monde ah. duñ leen mën a fàtte comme ni ñu koy waxee rek di leen souhaiter joyeux Noël comme ni mu ko waxee sànq ñoom Cheikh Bass Petersen Ndeye Astou Sarr Adama Mballo xam nga ki nga xam ne mooy Abdoulaye Mbaye Maam Modou Guèye di nuyu tamit ki xam ne nii mooy euh, euh, as VIP Shop borom Colobane borom Dali maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. Kempes doo ko nuyu waaw Kempes doomu ndoy Yagmar mais di féliciter Yagmar parce que ASM dafa gagné bëri démb coupe Liberté 4 di féliciter doomu Liberté 4 yëpp parce que tamit mooy sport mais di encourage ñi doon dajeel sport noonu la xam nga yàgg nag su amee ndam Babacar day am ndam. waaw ndax olof a ko wax lu gën a jege gën a yay yaa ngi dégg di ko ñaanal jàmm mais di ko ñaanal waa kër gi yépp waa Leewtoo képp ku fi xëy rek maa ngi lay ñaanal jàmm mais encore une fois mention spéciale à Pape ak suñu DG ki nga xam ne ni su DCA bokk tonton Diaw du noonu la demee maa ngi koy nuyu. président ADN di ko nuyu di nuyu tamit sama waa commune waa commune Ndondol yépp yaa dégg di ko jël nuyoo ba jox ko Pape Sène sama avocat sama maire président comité sénégalais des droits de l'homme sama xarit sama mag di wax ne que le 31 décembre final nawetaan bi am foofu dox ci diggante ASC bu CSN ak ASC bu Mbomboy moom lañ ko parrainé muy le 31 décembre di wax rek que le meilleur ci ñaari ay ASC parce que falaa dëkk di bawal bawal di nuyu waa Mbomboy waa ak yaay fépp fu doomu aadama nekk daal Babacar a ngi lay nuyu di la jaar di la balu àq. kon boog ba jeudi incha allah.